gis rek. summeeku summi ab ah. chauffeur clando la. beneen bi Fofana ab chauffeur clando la. Mhm. Serigne Bamba. Fofana ndekete. dafa am ab xale bu jigéen boo xam ne 14 ans la am ci koñ bi la dëkk. yaa ngi dégg. Mhm. Fofana fu mu romb xale bi rek may ko téeméer wala 300. ah mu mën nga ko. mu ne la foofu fu mu romb xale 14 ans bi rek ku jigéen la. may na ko téeméer wala may ko 300. xale bi ñaata at la am nga ne. 14 ans. mooy xale quartier yi. nekkam dama jëndi bong bong. ñu xëy suba ñu toog suba ba ngoon gis suñu xale bu jigéen bi. Mm. magam bu jigéen di ko wër ci koñ bi pour moom sax réer yi am ak jamono ji moo fa jaar. Mm-hmm. ca lañ ubbi néegu Fofana wër ba egsi si Fofana ubbi néegu Fofana. Mm-hmm. fekk Fofana ci kaw xale bi eh. maa day taali 14 ans. ah Fofana tamit nag. Ah, salaamaaleykum moo tax wéet baaxul wéet baaxul. bañ ko yóbboo yoon. weddiwul dafa ni daan siq xale bi tàmm na ko. Oh. da ko doon jox téeméer wala 300. ba ba foofu mais xale bi moo doon nangu. waaye xale la. xale bi nag weddi na ne moom mësta nangu. waa ji da ko ko doon forcer wallaay bu nangoo sa 14 ans la am xale la. mooy li ma doon wax keroog rek mbay il faut ñu waxati leen ko. xale boo xam ni mineur la même su nangoo yoon dafa ne da nga ko violé. donc nañuy bàyyi xel loolu bu baax baax a baax même nangoo yoon dafa ne da nga ko violé. Hmm. beneen bi mbay libération la.